ren di nga ni nene ngi ma ni mën nga mais damaa bëgg nga gën a yokk sa jom gën a yokk sa fulla ci liggéey bi ndax nit bu waree falu ci dëkk deret war ko faa fal juddu war ko faa fal ñu tànn ko ci ay nawleem fal ko dafa war a def jom def ngor ba lañ ko jox mu téye ko ba mu dëgër ba dara du ko ci rëcc te téye nga sa yëf wante xam nga lu ma bëgg industrial bii nga yore nga gën koo yaatal ñeenti weer yi leen fi dese nga nga nga nga jël ubbi siyaas ICOTAF SOTIBA Simpafric ak yooyu dafay yokk dafay yokk bëgg-bëgg ndax xale yi dañuy wax ne dañoo jël yoonu géej gi xam nga lu tax ñu jël yoonu géej gi ku la raw ci industrialisation moo la raw ci développement dëkk bi dafa war a bari ay usines man dégg naa sax nga fexe ba ubbi yow doo fexe ba ubbi ndax li ñu la jox comme budget mënoo cee ubbi mais nga def facilitation pour investisseurs yi ñëw di ubbi loolu nag li nga ci def gis nañ ko ndax juróomi at ak yow ak lii ci desaat encore ci ñeenti weer yi at ak nàngam mais yaa ngi ciy continuer di def li nga xamante ni moom nga ci doon def man li ma bëgg mooy boo amee sa fasu ma naaru góor danga naan maa waaye ki yor roccim ngeer moo mën ñëpp dama bëgg nga nekk ma roccin ngeen doon koo xamante ne lii ngay def ci agropole yi sud yi ak centre yi mu nekk loo xamante ne ñépp dañ cee war a teg seen bët nga communiquer ko ba ma xam ko parce que man ci loolu rek laay wax bis bu jot fu agropole yi toll parce que ñun dañuy bay di sànni di bay di tuuri soble day manqué Sénégal soble yóbbu ngeen ko ba kilo mille deux cent yéen a mën yéen a doole yéen rek a ko fi def ci Sénégal léegi nag soble bii ñu war a bay di ko def ci ay saako di tuur ngeen fexe ba usine di ko fi defar boo xam ne da koy conservé mu mel ni soble Maroc wala bu Italie yooyu am na solo nga fexe ba xaal yi ak yooyu ñu industrialiser ko ba nga xamante ne lu ñu nammati day nekk sur conserverie ak conserverie bu baax ba nit ñi dootu ko def clandestinement di ko dagg di ko denc ci biir kër yi moi je pense que euh, li ñu am ci suuf bari na joxal nit suuf ñu bay li ñuy bay ñu dundee ko te bu ko dundee mu amal ñu njëriñ parce que loolu dëkk dëkk bu la industrie gën a ubbeeku moo la ëpp doole te Sénégal gi boo jógee fii ba koro suuf kese la mais doo gis usine yokk leen usine ñu facilité Italie bëgg naa dugg Espagne bëgg naa dugg keneen bëgg ngeen dugg góorgóorlu leen ñooñu tamit dugg si jàppale la ci industrialisation Sénégal jëm kanam 4 mois lañ ko dese bu leen ko fay Salaamaaleykum.